mais bu ñu commencé si handball bi nga xam ne tey daanaka ci la ñu war a gën a mën a fës euh, ak euh, li nga xam ne moom mooy qualification enfin euh, participation sunu gaynde yi muy ñaareeli participation boo xam ne quand même ça a été honorable bu ñu ko mën a waxee noonu parce que bu ma defee le le parcours ñu ngi njëkk am match contre Croatie euh, ñu nul. 22 22 euh, contre Suède euh, Suède dóor ñu mais 26 à 18 muy lu lu lu lu jege euh, ñu ñëw ak Chine euh, ñu dóor Chine 22 à 15 looloo tax ñu qualifié au tour principal muy guléet. Sénégal di yegg niveau boobu noonu ginnaaw loolu euh, ñu dajeek Hongrie Hongrie door ñu 20 à 30 euh, ñu dajeek Monténégro Monténégro door ñu 29 à 21 euh, ñu da match bu mujj bi ñu ngi doon dajeek Cameroun ñun ñoo door Cameroun 22 à 20. mu nekk parcours boo xam ne. Mm-hmm. bu bu bu am solo la boo xam ne. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy gaynde yu jigéen ñi am nañ ko mm. euh, mu bëggoon rek yaat euh, Yatma Sensei man mm. j'aime bien t'appeler Sensei Yatma <laughs> nga nga nga jox ñu sañ njàngat ci parcours gaynde yi nga xam ne man moom vraiment j'ai été séduit par leur prestation waaw yow rek ah tout le monde a parce que xëy na bon man ni li ñi di xalaate ak man ni may xalaate mm-hmm. ça fait deux mm-hmm. parce que dama ne euh, ku dem ba qualifié au mondial war nga mën a euh, def plus que lañ la yaakaaree. c'est ça. parce que parfois am na benn effet. benn effet négatif boo xam ne man je me dis toujours que mënuñu ñu. xëy na ëpp nañu ay moyens. ëpp ñu peut-être motivation aussi. Mhm. bokk na ci am na bokk na si mais soo seetloo équipe bu handball bi. ñi si nekk ñu si bëri ay expatriés lañu. Mhm. ça veut dire que xam nañu ce que c'est que le niveau. absolument donc c'est vrai bu ñu qualifié euh, dem premier tour qualifié. Mhm. dafay nekk pour man lu lu loo xam ne day wane ni handball bi baax na. Mhm. mais nag xam nga ku ku muy jaajëfal. le président Seydou Diouf le président de la fédération de handball. Ah, xamul dara. Euh, handball bi dama ko suivre pendant longtemps. Mm-hmm. mais handball bi dafa def benn progrès immense boo xam ne moom moo imposer empreinte am. Mm-hmm. parce que à chaque fois que les gens devaient se déplacer. Mm-hmm. bañ na ko ba da daan génne xaalisam dinañ ko jox ñuy dem dans les régions Tambacounda fu nekk. ñu commencé di xeex. handball bi waaye bu match pare rek ñu faaj. cooki comme ni ñuy cooki. jaxase. Seydou ne leen du fekk noonu la man bàyyi naa man ñëwuma fi pour di ay xeex. waaw ah, ça ne colle pas avec je prends pas mes moyens je mets à la disposition et vous vous battez. Charles. Hmm. Hmm. les gens ont réfléchi parce que Seydou dafa xarañ. Hmm. mais loolu bokk na si li tax àndal bi ak fi mu àgg xam nga le travail dans la rigueur dans la discipline ba pare am ay entraîneur de haut niveau. mu jar la ngi génn xaalis parce que en fait kay wax benn affaire gis nga le sport c'est devenu une industrie. absolument. dootul rek damay def sport jël bal sànni tëb basket nii déedéet da ngay génn xaalis tu mets sur la mhm. bu amul xaalis boo koom doo dem. Mhm.